fatul malaki waaleykum rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala bim ñu maye kattan bañ mën fekke ndaje yu am solo yi parce que ndaje mu mel ni ku la yàlla fekkeloo baax la nga fekki ko da nga war a sant yàlla bu baax a baax a baax ndaje bari na mënoon na nekk ndaje mais ne sax sunu borom mais ku yàlla moomoon fii sax fii ñu toog nii da ngay sant yàlla parce que ci lu baax la ñuy waxtaane yàlla yeex nag di commencé suñu kàddu di nuyu comme ni ñu koy faral di defee le représentant de l' état ki fi nekkal son excellence monsieur le président Macky Sall muy le sous préfet monsieur Wade di nuyu son adjoint monsieur si di wax tuuti ci sous préfet ndaxte faral lañ diñ ko wax fu mën di toll loolu la ñuy wax ci suba bi may ñëw daanaka Ibrahima Kayre mën na ma seede mi ngi woon ci oto bi man ma nekk sama kër di xaar ma coow safoor bi mais daanaka ci yoon bi woo naa lu mat cinq appel parce que bu ñu waxee ma ne leen sous préfet bu leen la dix heures précise bu affaire bi commencé wu rek du doon ci moom loolu lañ xam ci moom ban commencé ba léegi te ku dee yàq sa bàmmeel it loolu lañ xam ci moom vraiment il est très déterminé très engagé mais il est très ponctuel di sàkku ci mbooloo mi ñëpp nañ ko ñaanal parce que ñëpp la yemale

nit ki bu nekkee ci lu baax da nga koy gën a mu nekk source de motivation parce que ñun ay xale lañ amaana saal bi ñoo fi gën a tuuti ay at kon kàddu yi ñuy yëkkati mën naa am mu dëng mais bu dëngee ngeen jàpp ne intention mi ngi fi boo xam ne ni yéene wax lu baax waaye nag doomu aadama matul di nuyu xalifa bi par le représentant Cheikh Omar Niang di nuyu le communicateur di nuyu le coordonnateur di nuyu nag chef de service yi fi nekk yëpp madame Sarr fàttewuñu le commandant service d'hygiène élevage yéen ñëpp ñu ngi leen di nuy daal pour bañ gën a guddal di rafet lu lool nag teewaayu oustaz Madické Niang bokk nii moom xam na li ma koy faral di wax léeg-léeg dama naan ko oustaz Madické même boo amee conférence ci commune bu Touba Toul li laay rasuli woo ma téléphone ma ñëw assister ko parce que ay kàddoom moom da nga cay jànge rek te ñëw nañ kër Ndiaga Sarr miin nañ fa tay tamit commune bu Touba Toul tamit par le biais du maire Ahmed Dieye tey bu ñu wootee ndajem kër Ndiaga Sarr moom mu teew wala mu yebal ñu yaakaar naa waa kër Ndiaga xam nañ ci dara parce que première activité du maire Ahmed Dieye kër Ndiaga Sarr la lépp lu ñuy def ci commune bi dañ naan kër Ndiaga Sarr la ñuy commencé kon alhamdulilah bi ngeen ñëwee CLD ñuy waxtaane nan la def pour le gamu du 18 mars incha allah mana a am réussite di leen dalal seen xel ne leen bu soobee rabbana du début à la fin commune bi taxaw na pour jàppale leen ci anam yëpp lépp lu nu ci yëg dinañ ci ànd ak yéen comme nag dafa am ay point yu nu soulevé dama doon def noonu de façon général rek ma dugg ci point yi par point yaakaar naa ne wax ji sax du gudd mais dañuy synthétiser rek bu dee problème mu électricité am na loo xam ne nii courant heureusement dëkk bi am na courant bu dee extension ku ñëwoon sunu ndaje yi ñu doon def ba ci orientation budgétaire xamal la ne en deux mille vingt sunu programme boole dañ ci extension am na loo xam nag mënuñu ne dinañ la jëlal courant yóbbu la fee dun ko ko mën mais loolu wàllu éclairage public yaakaar naa ne bañ na ba dëkk bu nu jëm mu am événement muy la muy dëkk yëpp dañu naan lamp yi fu nuy mën a defati lamp arrêté nañ dëkk yëpp ba dëkk boobu programme am jàll muy ci lawunte muy ngas ga muy fi jaar yëpp te kon nag njëga saar yéen kër njëga saar yéen ay jàpp leen ne lépp bu muy programme électricité muy éclairage public ubbil nañ leen suñuy bunt ngeen wax ni ñaata làmp ngeen soxla pour dëkk ba yëpp mën a leer rawatana fi nga xam ne fala mbir ma di amee ubbil nañ leen suñuy bunt mu ngeen ñëwee pare nañ pour recevoir leen dañ leen boole ki nga xam ne mooy rek commission wàllu li électricité muy Saliou Mbow te sawar na ci lool lépp lu ngeen soxla ci làmp rek ñëw leen ñu recevoir leen ngeen bind yónnee ñu kii xam na fa bu baax baax miin nañ yow peut-être ñi ngi soo gisee mais daal foofu na seen xel dal lépp lu ngeen soxla ci ay làmp bu soobee rabbana pour dëkk ba leer nañ dinañ ko def dinañ leen ko jàppale bu loolu jàllee muy wàllu service d'hygiène niñ ko faraloon di def lañ koy defee lépp loo xam ne ni produit la ngeen soxla ko bind leen maire lépp lu mu ci man dina ko def amaana oto bi nu yor xaw naa sant ñang loolu ngeen baal ma waaye tamit pare nañ pour mettre notre véhicule à votre disposition pour service d'hygiène buy ñëw amul lu ko indi ñu jox leen oto bi bu dee daa war a pomper nañ ko teel a yëg programme bu nu di am ñun ci mairie bi mën nañ koo bàyyi wuti beneen oto mais oto mairie bi moom incha allah rabi nañ pour mettre à votre disposition pour xam wa waa service d'hygiène bu ñëwee duñ am benn jafe-jafe pour mën a pompe lépp lu ngeen soxla tamit ci produit bind leen nañu somme bi lii la ngeen jaar ci nga xam ne ñoom mooy les services compétents ñu xam ko ñun dinañ leen ci jàppale ci côté boobu soyez rassurés bu dee wàllu UCG yàgg nañ di liggéey xam ngeen ci dara ya kan moom bu ne kan jaga saar mbindam parce que andil nañ leen fa ay quatre plan kamb yooyu ngeen di wax incha allah rabbi heure bu ngeen ko bëggee pare nañ pour woote eh, waat camion yi dinañ ñëw quatre plan yi dinañ ñëw maasale leen kamb yi ba mu jeex malit ma fa nekk dinañ ko jël yóbbu loolu moom na seen xel dal bu dee ci wàllu bu dee ci sapeur pompier sant ndax heure ñun ay élément te ren par le biais du maire Ahmed Dieye formé nañ trente cinq éléments yo xam ne nii dañoo ñëw nekk ci croix rouge gàmmug pir gii passé bu ngeen demee gis ngeen fa croix rouge local dinañ leen mettre en rapport avec nga xam ne moo muy Assane Diouf mu élément bu ci disponible dina ñëw jàppale leen àndandoo ak sapeurs parce que ñu nit luñ leen formé formé formé euh, expertise bi war ñoom amuñu ko sapeurs ñoom ñoo ko kon dinañ leen boole ak sapeur pompier yi ñu àndandoo ak 35 yëpp bu ñu disponible dinañ leen ko mettre à votre disposition mais jàppale ne bu ñu fi génnee nii leen jox numéro président Assane moom même na mooy coordonné croix rouge bi am nañ groupe whatsapp dinañ ci jàllale information bi ñi nga xam ne disponible lañ bu soobee yàlla dinañ ànd ak yéen ci gàmmu gi du début jusqu'à la fin loolu moom dinañ ko def bu dee wàllu eaux bi tamit eaux yàlla dogal nañ formé nañ des volontaires de l' environnement bi ñu ko lancé dañ ne woon Touba Toul à 96 villages officiels dëkk bu ci nekk na ñëw andil ñu élément ñu formel am na ñu ñëw am na ñu ñëw mais ñenn ci abakas néew mu ngeen rapproché wu ci ñun neen leen mettre en rapport pour liggéey bi ci terrain bi mën a yomb mën a faciliter également que ñoom seen i élément du doy te volontaire de l' environnement disponible lañ dëkk boo dem rek bu dee wuyu si nañ am nan li nga xam ne moom mooy volontaire de l' environnement am na tamit loo xam ne ni fàtte ngeen ko wax dinaa leen ko muy mbirum set setal sous préfet mi du euh, dina mën na ma dëggal li may wax heure bu ñu fi organiser CLD wàllu ASC dañ ne ASC subvention yi leen di jox bay dëkk bi da cee bokk kon tey jii avant nit di ñëw di leen defaral seen dëkk li anglais di wax charité bi at birgin at som charité bien ordonnée commence par soi-même nit ki boo bëggee mu yóbbaale la day fekk mu nekk nga nekk ca yoon ma mais tey ASC bi nga xam ne moo nekk ca dëkk ba donte participer wul ci wàllu commune bi ci nawetaani mais doon na participer ci li nga xam ne mooy ay tournoi xam naa ci dara parce que ci ASC laa bokk te vice président zone la ASC bi teel leen a waxtaan ak ñoom jeunesse bi parce que dañ cee am wàll na yu mel ni jeune bi dañ jeune yi dañ cee war a participer ñoom ñëpp ñu man koo jóg set setal dëkk bi d' abord parce que balaa service d'hygiène ñëw balaa santé ñëw bala ñoo ne naam da nga fay ne nanu setal dëkk bi d' abord su ko defee ki lay dimbali si day yomb mais daal pour gën a bañ a guddal muy wàllu ndox mi tamit ku ne xam na ne eau du compétence transférée bu maire mais lépp lu ci man pour jët wutal leen ay citerne pour accompagner leen le maire incha allah avec son équipe nañ ko def yéen daal lu ñu ci yëgut lañ xam moo nu jaaxal mais jàpp leen ne bis ñi tey di le 16 ubbi nañ suñuy bunt lépp lu ngeen ci bëgg duy début à la fin même bu ngeen soxla woon sous préfet pour une audience wala une réunion te amu len moyen yu ngeen jëlee kër Ndiaga Sarr ñëw man maa nga fa de façon bu ngeen ma saisiré oto bi dinaa def tout pour mu metre leen ko à votre disposition mu andi leen bu ngeen pare mu yóbbuwaat leen bu soobee rabbana waxoon naa ko na ci biir wax ji sous préfet oto bi xaw naa sant ñang lool mais daal dina ñëw dem du ngeen ci sàkko du ngeen ci defee ñaan amaana dina aboutir mais daal grosso modo jàpp leen ne la mairie de la commune de Touba Toul le maire son équipe ses collaborateurs le chef de cabinet ñëpp ñi nga xam ne jegeñ nañ ko pour liggéey jàpp leen ne li ngeen ñu dénk mooy pour ñu dox ci askan wi te askan wi bu buñ xasee ba wóolu la ba dénk la li ci des nag mooy yéene ji ak dafi pexe pour nga mën leen a satisfaire te gàmmoo kër Njaga Saar tamit nag def nañ ko sunu priorité à partir de d'aujourd'hui fii ba le 18 mars lépp lu ñuy def lépp lu ñuy waxtaane ci biir mairie bi jàpp leen ne dañ ci dañuy mettre en avant li nga xam ne moom mooy gàmmu kër Njaga Saar dëkk bu nu miin la dëkk bu nu xam la te defuñu fa dara ba réccu ko te yàlla buñ réccu lépp lu ñu fa def parce que xam nañ tuuti ndax ñëw nañ fa man fekke naa fa ñuy waxtaan ci maam Cheikh Ahmadou Bamba Niang amaana duñ ci dugg kii am na lu wax léegi tout à tur bi rek saa veut tout dire te bu ne waa ba ñu wëlbatiku ne tur bi nu mu tudd ñu ne Ahmadou Bamba cela veut dire que Sénégal bu nu yeew woon mbirum tarixa ñëpp benn lañ te yàlla wax na ko ci alxuraan jullit yëpp ay benn benn lañ li nu gën a fi nuy rawantee mooy ci ragal mais Tiijaan Murit Xaadir Laayeen ñëpp bañ benn la Sénégal nation sénégalaise la ñuy wax muy catholique muy ku mën noon chaque chacun est libre de pratiquer la religion de son choix li ci am nag li ci des nag mooy yéen la yéen coordination bi à partir d'aujourd'hui su prévax na leen ko li ngeen war a bind te xam ne moom da koy valider ñun ñu valider ko bu tardé ci yéen la ndax am na loo xam ñun mënuñ ko tant que defu leen ko ubbil na leen suñuy bunt bu ngeen demee ba am problème mu sax nu ngeen koy binde mën nañ leen a mettre en rapport ak koo xam na ni tey ci wàllu nasaraan mën nañ leen a boole pour ñu bindal leen bu ngeen ñëw sous préfet na nañ leen a jubbanti parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite mën nañuy wax juum mën nañuy bind juum mais cellule de communication da ngeen ko war a taxawal coordination am na solo mais ci biir ngeen am une cellule de communication fi may terminer mooy di lancer appel la presse locale vraiment ñun de bu dee niveau Touba Alioune bu baax te yaakaar naa fépp la Ibrahima Kairé le directeur général programme bu am ci biir Touba Toul ñun dañ naan ko bu nu sañoon sax nga def ko direct li ñu warloo ak rajo bi dañ ko def parce que rajo local amuñu salaire ndax xam nañ ko ndax jaar naa ci rajo local ba ni may wax yi maa ngi woon rajo xombal depuis dix ans maa ngi ci rajo yi nañ leen dimbale liñ leen di dimbalee mooy yéen ngeen wax leen ni ngeen ko bëggee ñoom ñu dalal leen ci ay plateau tey ñu ne Touba jeudi soir guddi la sëñ Maguette Niang ma nga fa di def ay émission mu dalal sëñ Madické wala mu dalal kenn ngeen wax kan mooy Cheikh Amadou Bamba Niang lan moo waral gàmmu kër Ndiaga Sarr ñu ngi ci ñaata at lan lañ fa bëgg lan lañ fa bañ pour rejoindre sunu papa ji defe naa daal pour bañ a gën a guddal sous préfet je parle encore sous votre contrôle que lépp loo xam ne ni dëppoo na ak yoon parce que lépp luñ ci def te dëppoowut ak yoon it il est là pour contrôler légalité kon lépp loo xam ni dëppoo ak yoon te commune maye ñun pare nañ pour jox leen

parce que tamit pour rappeler pour rappel rek dañu fa dajale woon mooy CLD préparatoire effectivement gàmmu kër Ndiaga Sarr sànq sax bi may génn maa ngi jégalu si loolu préfet département moo doon woote man dèjà moom yëg na ne ñu ngi si CLD te information yi ñu jëlee fi yëpp moom dañ koy teg si loxoom loolu dafa noo ko jàll donc loolu moom satisfaction la di rafetlu nag vraiment ni waxtaan bi demee bëggoon jiital kàddu ci remercier eh, ak surtout féliciter les se de service

bu ñu armé te ñu si fayir kon loolu vraiment ginnaaw bañ leen félicité si seen taxawaay bi nga xam ne amul dara lu ñu si wax ñu leen di gën a engagé ci at mi ñu nekk ñu gën a taxaw si préoccupation population yi parce que aussi loolu président de la république loolu la bëgg loolu la ñu santé kon vraiment maa leen si engagé di leen wax ne ñun lépp loo xam ne lii seen soxla la bu fekkee war na jógee si collectivité territoriale bu ñu si yéegee aussi nañ si waxtaan ak collectivité territoriale ba mu jox leen parce que aussi il faudrait ñu jàppale leen parce que qu'on parle tey de territorialisation des politiques publiques donc war na am benn ligne bu am entre yéen ak côté territorial bu ko defee soxla askan wi ñu man ko ngoon xam naa yaakaar ne gàmm gi ñu jëm benn jafe-jafe duñ ko ci am wàllu électricité également ñu ngi sant engagement yi nga xam ne moom moom la euh, Senelec jël xam nañ ne loo incha allah dina mat liñ ci war a def ñun muy jàllale kii di bind délégué régional pour ñu mën a nekk mettre zone bi hors délestage pendant le jour et, après et hein, avant pendant et après j'ai ko def danañ leen également ñu ànduñu benn groupe hein, électrogène bu ko nous bu ñu amee jafe ñu mën si service d'hygiène maire wax l'a ko nous avons aussi si si ñoom amuñ si un xaar parce que même le maire Ahmed Dieye que j'ai remercie au passage pour son engagement aux côtés des populations parce que nous yàlla ko xam mission bi ñu dénk mission assurer le bien-être des populations te bañ na gouvernement sous préfet booy dem réunion jëlal engagement sama tur tey même monsieur le maire Gora Anne mii nga xam ne bu ñëwuloon mën naa tey taxaw ne leen tubaatul maire bi dina def nangam def nangam def nangam su ma ko waxee na ko def woon na ma ne ngant bu rëy rëy moo ko tëree ñëw tey mais dé bi moo ko waxee que dana ma préfet yow bi nga arrêté lënd bi xanaa bàyyi woo ma xel ma ne ko non boobu sëñ moom dafa bëgg ñu taxawal affaire bi am bés te altine rek laa am ci semaine bi bu libre mën nañu woon def loolu tànn ko lënd mu ne ma lu ma mën naa ñëw parce que kër Ndiaga Sarr am na fu mu toll si man kon wóor na ma ne tey bu doon ngànt bu dara dina ànd ak monsieur le maire mi nga xam ne Gora Anne fi tey yàlla góor monsieur le maire Gora Anne man na ko fi teewal parce que wax na ko sànq c'est le maire permanent lépp lu nit soxla si commune bu jógee si noppam moom dana ko dox dana ko wax kon monsieur le maire ñu ngi lay euh, féliciter si sa engagement boobu te xam ne loolu mooy seen raison d'être yéen noonu askan bi jox leen ñu doxal bu leen askan bi joxee ngoon war ngeen ko ne li ngeen yor askan bee moom te leen a ngi si loolu le président bëgg moo tax mu renforcer collectivité territoriale génn fi ay communauté rurale def lépp ay commune bu ko defee jox leen ay davantage de compétence pour ñu mën a jàppale askan donc loolu ñu leen si remercier te xam naa ne aussi wàllu courant bi ngeen si wax amuñu si benn euh, xalaat di ngeen ko def muy éclairage public bi muy également extension bi nañ ci ànd ak yéen fexe ba waa Sénélec jàppale ñu service d'hygiène également dañuy soxla mooy dotation de produits loolu commune bi dina leen si jàppale parce que wax nañ ko commune dans leur budget c' est inscrit de produits d'hygiène et donc donc dinañ fexe jàppale service d'hygiène ba ñoom ñu mën a taxaw ñun aussi dinañ ci gunge service d'hygiène bind ay kilifaam ba ñu mën def dotation pour service d'hygiène parce que moom dafa bokk si service yi nga xam ne bu amul euh, crédit délégué xam nga état Euh, bu ñu àndee fii muy gendarmerie muy sapeur muy OFR ku ne dina la dina la compal tuuti noo doxee mais service d'hygiène bokkul ci service yi nga xam ne am na crédit muy doxee ba tax na kon ndeke ndi collectivité ta monsieur mel ni koy ko bu baax ko jàppale te service d'hygiène mënul ñàkk ci suñu dund waaw parce que set moom mooy dund wax dina bu ñu wootee jotaay l'islam l'islam mooy lan boo wax mooy set kon nag service d'hygiène mënul ñàkk ci xew-xew bi mooy aussi ñu ngi koy engagé incha allah te am nañ yaakaar ne ni ñu ko bëggee dinañ ñu ko defal wàllu sécurité sécurité moom mooy gàmmu wax naa ko tantôt eh, wax nañ ko sànq gendarmerie c'est la grande muette ñoom bu ñu la dégg naa la doy na am naa yaakaar ne ni ko waxee nañ def lu kawe suñu jot parce que aussi masuñoo des gannaaw ñoom lan nécessaire nañ ko def danañ demander renfort ba nañu am suffisamment d'éléments ànd ak un sapeur pompier ba ñu mën a assurer sécurité des populations et des biens parce que loolu moom moo am solo loo mooy seen mission assurer circulation population et leur bien te loolu ñoom ñaar nañ ci taxaw euh, kon nag vraiment loo aussi ñu rassurer comité d' organisation bi du am jafe-jafe maintenant wàllu hydraulique wax ngeen ko sànq mosu nañ am jafe danañ gën a ñaax effectivement euh, ñi nga xam ne ñoom yor agifor yi ñeen ko bëggee ñu joxe leen ko élevage également wax nañ ko ñoom dinañ leen jox nañ leen ay ay ay orientation ay recommandation ne ba leen ko defee mbir mi dina yomb si ñoom wax na ko illustre mais dinañ fexe ba eh, agent bi nga xam ne moo yor wàllu waaju bu tolloo si xat-xat yow moom mu jàppale ko ñëw renforcer ko bu ko defee moom mu def mën a def liggéey bi ñi nga xam ne moom moom lañ ko bëggee eh, wàllu eaux et forêt également c'est pratiquement acquis ni ngeen fi soxla woon yëpp soxna si nangul ne lañ ko ñu koy remercier ko dañ koy yoonal rek te xam ne aussi moom dafay solo couverture te jamono ji ñu nekk dafa ne jamono def léegi rek mu tasaaroo si àddina buñu leen gisee ngeen di gor garab léegi gisuñu si réseaux sociaux fekk yéen yéen am autorisation mm-hmm. waa ji moom lu muy def foofu mu ngi nelaw loo tax ñuy yoonal bindale tax bi ñu suñu kàddu sànq ñoom lépp loo leen rek dañ ko jaaral si yoon loolu rek lañ si jublu maanaam da ngeen leen di couvrir pour ñoom ñu mën a def seen liggéey correctement bu ko seen kilifa yi ñu toogee fee ne ma kii nan la mën a nekkee fii nangam nangam te yéegu ñoom lu ñuy def dañuy rendre compte seen seen i kilifa loo tax sax ñu exiger pour ngeen bind wàllu euh, CSA loolu wax nañ ko sànq mooy ndimbal bi wala ñu bindee rek incha allah danañ ko appuye jox ko kilifa yi yàlla dogal na sànq bi may le préfet département doon woote moom yëg na xibaar bi UCG waat dina ko def UCG mooy wàllu mbalit mi maire wax na ko sànq euh, gàmmu ndaw yi dañ ci am vraiment solo bu am bu dañ ci am taxawaay bu am solo boo xam ne dañ ko war a taxawee jàppale collectivité territoriale yàlla dogal na tey maire am nañ lu ñuy wax ay ay agents yoo xam ne dañ leen recruter ci cadre FERA pour ñuy seetal dëkk yi parce que ñu xam nañ ne FERA am na mission bu leer ci kaw tali yi mais léegi nañ ne bu gàmmu jotee maire yi dañuy organiser ba ñoo xam ne ñoom la ñuy jël ñu andi leen ànd waa dëkk bi ñu bale dëkk bi yooyu mu set ànd ak waa UCG eh, lépp luy sën ñu war ko ton ni eh, ñu ko war a déplacer yow aussi xam naa ne dinañ ko def no incha allah arrosé également piste bi loolu yaakaar naa ne maire dina ko def et eh, amu si benn xel eh, xel ñaar maintenant tentes yi ngeen doon demandé pour ñu eh, mën ko jox sapeur pompier danañ saisir également protection civile ministère intérieur sàkku si ñaan bu mënee am sa ay bâche ak ci au niveau de la DMTA dinañ ko si demande lépp lu ñu si accordé rek incha allah dinañ ko wax dinañ ko wax ñaan suñu kilifa ñëw wàllu ONAS maanaam pour foos yi moom jàppale ne boobu moom c'est c'est c'est c'est acquis dinañ fexe da ngeen am benn camion wala ñaar yu ñëw Eh, fexe defal leen liggéey bi loolu moom dañ koy changé wu parce que tamit gàmm gi comme eh, ki muy tembal dafay waajur si ñun day ndijaay peut être dugguñu si eh, suñu <laughs> Amar am na lu ñu lu ñu lu ñu boolee lu peut être ñu bari xamul fii waaye mm-hmm. ah, am na ñu ko xam mm-hmm. kon nag moom aussi am na loo xam ne ni bu dul woon loolu sax dañ ci war a taxaw mm-hmm. rawatina nag loolu bi mu si bokkee loolu tax na dinañ si am vraiment lépp loo xam ne daal jàpp leen ne seen préoccupation incha allah danañ ci euh, taxaw ba ni ngeen ko bëggee ñu ñu am ko wax nañ wàllu yoon bi ajuri bi ak yëpp defe daal su ma jumlee de manière ramassée li mooy préoccupation yi nga xam ne tënkoon nañ ko fekkee am na loo xam ne di waxuñu ko si ñu fàttali ko mais lii moom mooy li ngeen xam ne moom la ñu gaaral ko wàllu communication bi loo moom moom moo jiitu moo mujje moo tax moo tax sëñ bi mu ko waxee sànq loolu loo xam ne li tey li ñuy def ni communication bi moom moo tax bu ñu génnee ci àddina gépp dina xam ne gàmmu maam Ahmadou euh, Bamba Niang euh, seen kër Ndiaga Sarr c'est le 18 mars tey moom dina wër si àddina parce que bu ñu paree tey jaam dañ ko dugal si réseaux sociaux kon bu war ne communication moo nekk si avant et après euh, moom mooy yor cérémonie dañ nekk jamono xam ne communication si am solo rawatina li nga xam ne le monsieur le maire sëñ Gora daf ko wax dafa am solo à travers événement yi ñu fàttali nit ñi parce que zakir la ñu wax fàttali dana fàttali ki nga xam ne dafa gëm parce que te loolu moom moo ñu manqué tey suñu problème bi yëpp mooy problème éducation ça aussi il faut ñu dut ci baaraam occasion yooyu jaar nañu waxaat parce que aussi mission yi nga xam ne moom la kër kilifa kilifa diine yi am mooy yar ak euh, ak orienté eh, te son excellence président de la bi mu toogee si euh, boppu réew mi préoccupation bi jëkk mooy son excellence président Macky Sall mooy nañu soppi jikko yi te am na ko wax kilifa diine ñaanal leen pour jikko yi so soppu parce que problème mu jikko rek la ñu am Sénégal am nañ pratiquement li war yëpp pour mën a décoller mais bu fekkee ne kenn day gas kenn di suul pax du am mukk te il faut ñu changer comportement rawatina yi nga xewle yi xewle yi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga kilifa diine yi di saaga kilifa aada yi yoo xam ne loo xam ne man nañu wax ne balaa bi ñu yi ñuy dal ni sax mën na jóge foofu parce que tamit kilifa diine aussi ngay bëgg a teggee nañ si kàddoom mais moom bu la rawaanam di teg doo xam bu presse bi ne woon sax ñu xaw si sori mais yu jaram mat mu jaram maytu la yu la te ñu ngi koy fowe xotti orma yi fonkatuñu kenn du kilifa diine du kilifa aada chef de service maytuñu kenn mu liggéey mais service de ordre yi bu ñu bëggee liggéey ngi ay résistance teguñu ko fenn collectivité territoriale bu ñu jëlee ay mesures nga gis population yi taxaw fële takk morceau yu xonk suñu bakkan lañ ci teg mais à ce ñu tabax suñu réew parce que aussi il faut ñu nangu ne réew mi il faut am ñu jiitu il faut ko doxal te ñoo ko war a doxal nag dañ koy doxal pour intérêt général il faudrait que décision yi nga xam ne moom la jël nit ñi man si sukkandiku ñu ñuy tere ñu bàyyi ko ñu ñuy digle ñu def ko ñu ngi sàkku vraiment sëñ bi loolu communication bi insister si parce que loolu rek la si état am moo tax mu ne bis yi nañ si jàpp ànd ak yéen accompagner leen parce que communication da si am solo parce que nit ñi changer de comportement c'est extrêmement important bu ñu ko defulee quel que soit effort yi nga xam ne moom la état sénégalais te tout le monde sait que le président Macky Sall en train de faire euh, beaucoup d'efforts si wàllu euh, suqali suñu gox goxaan yi. waaw tamit bu ñëwee dem gis nañ ko lan la andi communication intégrale lan la commune rurale Touba Toul léegi commune la au même titre que commune Plateau Dakar Plateau prérogative yi ñële moom la am lu ko waral lan gis nañ fi PUDC monsieur Goraan wax na ko bi mu yàggul dara ñaata dëkk moo fi amoon courant diggante tund Touba Toul ak arrondissement bi ñaata dëkk tey ñoo fi am courant ñaata dëkk ñoo fi am amoon yoon ñaata dëkk ñoo fi am yoon yow yëpp mooy effort yoo xam ne yi état Sénégal mu ngi koy def pour nit ñi nekk si nekkin bu gën am solo jaar na nag aussi en retour ñu am ay comportement exemplaire yoo xam ne yi dana mën a fexe yow génn mooy lan mooy tegu si yoon nangoo liggéey parce que aussi état mënul utal ñëpp liggéey nañu nangoo liggéey contribuer suñu développement réew góor wax na ko loolu la américain yi rawee dañuy toog di xalaat lan dañ mën a defal suñu réew lañ toog dans réew loolu si sëriñ si lañ nekkoon boo gisoon ñu laxasaay woon jël njaboot gi yar leen tette leen loolu lañ bëggoon boo defee ñu am taxawaay yoo xam ne dañu mën a subi wëlbati euh, jamono donc vraiment kàddu yooyu lañ ne ñu wax ko di sant yo cérémonie bi nag aussi comme ni ko euh, sëñ Ndiame waxe danañ ci waxtaan euh, parce que cérémonie officielle aussi du gàmmu cérémonie officielle comme son nom l'indique am na ñoo xam ne ñoom lañ fa jaaree kàddu euh, famille bi bu ñu waxee wala tànn kii wax kilifa gi mooy mujje mooy ñaan la sëriñ bi te territoriale wax peut-être sous wax wala ministre bi ñëw wax mu jeex ñu doyloo loolu parce que aussi il faut ñu doyloo porte-parole bi wax ñu xam ne bu waxee waxal nañ ñëpp mais fekkee dañu bëgg ñëw bëgguñu kenn mer ku ne di wax ku ne di wax te kilifa yi fa ñu toog duñ mën a jóg te jamono ji kenn wératul di nga mën a soxla sa bopp yéen saa doo xam nooy def di nga toog ba finalement yow dafay mujj xaw a metti et eh, donc vraiment ñu ngi siy sàkku ñaan bu baax a baax ngeen dimbali ñu si euh, cérémonie bi nekk loo xam ne nu mu gën a yeme rek gën a baatu terew ku wax rek dina yóbbaale ñëpp donc daal loolu mooy di dalal seen xel ne incha allah. pratiquement seen préoccupation yi ngeen fi soulevé yëpp dinañ ci andi ay ay solution incha allah incha allah lu kawe seen jot donc loolu la woon fekkee ne sëñ bi ah nga si kàddu ñu joxaan leen avant ñu ngeen di tëj jotaay bi yéen koy tëj. ñëw ci man ñuy waxtaan ba mu xam ne Touba Toul laa dëkk. mu ni ma waa Amath Dieye yow gis nga yu kawe yi muy def. man ko yu demee nan mu ni ma moom doog nga jël xaalisam. di liggéey dëkk bi. di xaar financement. Mm-hmm. pour mën a conclure li muy def. ah loolu nekk lu kawe loo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët mm-hmm. kon nag bu ñu ñëwee ngërëm yooyu ak sant yi jib fii mm-hmm. ñun itam ñoo ngi la koy yóbbanti ci moom te di ko wax ne yokk a laxasaat ndiggam bu baax baax xam naa kàddu gi nag luñ ci am dama cee doyloo sama mbokk yii toog muy njàmme mi bàyyi ma di ko ji mii di coordinateur waaw ah, waaw ñu delloo leen ko lépp rek li ci des ñu def ko ay ñaan tabaarkalla jërëjëf kontaan nañ loolu. Sëñ bi. Sassane moom bu ñu ko waxee ci commune Touba Toul la bokk. Mm-hmm. waaye dafa am benn euh, spécialité bu am mooy xalifa kër Ndiaga Sarr ci commune yu Thiénaba lay yeewoo muy bàyyi sëriñ Omar Niang te yow yaay ilif commune bu Toubatoul maire bu Toubatoul yaay ilif maire bu Thiénaba loolu tam ñu amaat beneen ruq boo xam ne dañ la koy ñaan si sa diggante ak monsieur le maire bu Thiénaba monsieur le maire Talla Diagne ci dugal loxoom ci gàmmu gi donte mu ngi ko ci doon def waaye noo ko ci gën a def Euh, bu ñu waxee nag dugal loxoom ci gàmm gi ci dañuy jaar ci moom rek wàccaat ci côté santé mm-hmm. ndax Thiénaba euh, xalifa bi muy bàyyi sëriñ Assane Seck ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér euh, moom mooy kilifa Kër Ndiaga Sarr mm-hmm. gàmmu Thiénaba bu jotee en général ci dotation santé dafay comprimé budget comprimé yi muy médicament yi mm-hmm. dañ koy yaatal ba doon ci sóoraale yenn gàmmu yi ci gox bi te kër Njaga Saar yàgg yëkkati kàddoom jëm ci loolu te mosu cee gis boppam waaw bu ko defee ñu doon soññiwaat ci côté boobu bu fekkee ni ci volet santé mën nañoo jigéen ñi ngànk santé bi te muy compétence transférée wàcc ci monsieur le maire euh, bu ko defee comprimé yooyu tamit waxuma sax euh, ñu leen ci xalaat waaye gàmmu yàggul woon bu jeexagul ñu mën ñi cee compal ñu yóbbu kër Njaga Saar loolu Euh, maa ngi koy ñaan euh, ci turu délégation bi ci turu Omar euh, mi nga xam ne moom moo ñu jok sing damay jox sëñ Mortala mu ubil alaaji alaaji tëj kàddu yi rek ñu dellu siwaat ci yow bu soobee yàlla. dafa am benn bis waxtaan woo koy sëñ maanaam kilifa goo daw na waxtaan ba bëgg noppi ma ko may ma tuuti ma sang Euh, da daf da daf daf maa da euh, daf daf daf maa daf maa laal waaye euh, sang bee moom lay jëkkee am préfet sëñ Abdou nuyu na la ndax ginnaaw yàlla yonent bi mooy lépp sëñ Omar mii mooy lépp sëñ Omar mii waaye nee mi ngi lay nuyu mi ngi ñaan Euh, euh, guddi mi ngi ñaan mi ngi ñaanal mi ngi lay ñaanal bëccëg euh, waaye fi ni fi ni tàmbalee mooy gërëm xalifa bi Baye Ass ndax nun bi nga xay di nga am sëñ Mbamba sëñ Ibrahima Seck may na ko kër daa daa dem sama papa ne ku ñu mën di tànne taalaa ji tool far ñu tànn sama nijaay ndekete xañ na sëñ Mbamba loolu ñu wax mm, buut buut ca taatu garab lay ne waaye yàlla dimbali nañu mayam ci euh, xalifa bi rek euh, tëb euh, xalifa yi nga xam ñoo fi jàlloon sunu kile waaye kii daf ma teel a comprendre xam ndax bu yàggutoo rek ci wàllum gàmm gii rek am na as njuyoo soo xam dama ñëw am loo ko expliqué rek mun ma lii nga wax jeexal na lépp te loolu cër la Euh, sëñ ñaane jaar nañ foofu ci cër boo xam ne sédd na ko sereñ Bamba waaye euh, sang bi yow noo ngi lay ñaanal yal na nga fi yàgg euh, xam na nu képp koo xam ne kii ba mu nitu yàlla waxal nga ko benn baat boo xam ne bii hmm? waxu ko laa la ca fekk ëllëg bala noo ñëw foofu njàmm mii hmm? sëñ Bamba ne na sant na ne gërëm na Euh, sama taaw ndax mooy mooy léegi sama taaw sëñ mbamba sant na la gërëm na la waaye Amet euh, Amet Jéey sëñ Bamba euh, am na sas wu mu topp waaye sas woo sax bariwul sas woo sax sasu mbay cooy la waaye dañ ci koy korfatil tuuti rek muy mbaar ma te nag ku waxal nit yàlla loxo yi waxu ko xam naa la ca fekk kooku loolu wax sa diggante la ak mbay sax waaye mun mu ko ñàkk gi ndax yaa ma ba mën naa ni paawu tuuti waaw kee mën na maa waxal ay dañag mais fa tabaarakallaahu njàmme daal li may bëgg a wax sax mun ma ko wax waaye beneen yoon nga complétel ma ko waaw ndax man damay junju rek ndax amoom la am droit waaw waaw fa tabaarakallaahu waaw ndeysaan xam di ko ziyaare defe naa ni kàddu yi egsi na fi ñu war a tëjee waaye dama dëkk kër Njaga saar xam naa nag kilifa gi laay waxal ndax sama waajur wu jigéen kii ñuy defal bis bi muy Cheikh Ahmadou Bamba moo ko yëkkati jox ko suñu waajur yëkkati ga nag barkeel lool parce que koo xam ni fu ñu fu ñu tàntale yonent bi xalaat la soo jàppee ni amoo cër yow yaa am cër loolu ñii seen mam moo ñu ko fàggul mais sunuy bàyyi dundandoog seeni i fo njabootu Cheikh Ahmadou Bamba ferankulaayu sunuy waajur ferankulaayu rajo rawatina alaaji Ousseynou Mbow ba dem bàyyi nu fi ndax damay wax ne ndono dafa foor te ku weddi ndono dafa foor Horal jinax bu jàkkaarloog ñett da koy dem mais dégg moom kenn du ko sekkil defe keneen ku ko defoon mën ngaa fanaani hôpital kon ndono dafa foor te ñun sunu ndono li dañ koo fonk ndax sunuy waajur lii la ñu bàyyal ñoom it nag Cheikh Ahmadou Bamba fu mu amee présidente Aïda dina wo wala Alaji Malick woo kon démb rek la feddali fo sori la ñu jóge te bu ñu paree dañ fay dellu lii rek moo ñu yëkkati kon bu ñëwee ba ci jotaay bi nuyit ñu am ci kàddu ndax lay gàmm ga di tudd yàlla tàgg yonent bi dañ koo wàcce ci suñu kaw te wàcce gi wàcce démb la kon nun tamit ñu mën a taxaw dugal foofu suñu kàddu lancer message wax ni képp koo xamante ni si bokk nañu réew yoon wi muy tudd yàlla tagg yonent bi gàmm kër Njaga Sarr lu ma waay di lebal na ma ko lebalo foofa lu ma waay di fay na ma ko fayale foofa ndax kër Njaga Sarr rek la am man nag damaa bëggoon feeñ ci buñ ma ko moyee ci benn mat ndax loolu moo cee suñu wàll te dama bëgg su bàyyi am Omar taalee gis ni ñëwoon naa waaye képp kuy suñu soppe yëg ni maa ngi waajal gàmm gi lii rek laa doon ñaan digal su ma ci amee ma yëkkati benn marxo rek ndax loolu mooy suñu domaine fa tabaraka ñaana la nag suñu borom dëgëral la parce que wax dëgg yàlla avant ngay ñëw dégg nañ ay écho ci waaye bi lu ñëwee jëf deful nawle wax am na loo xam ni kenn du ko wax parce que lu ñuy fang kenn du ko jeex yàlla na yàlla yokk say garat te li ci gën a di nga ko def ak diplomatie mais di nga ko def tamit ak dal ak yar ak convaincre ni ñi loolu tamit mën nañ koo seede parce que ñun ñii ay porteur de voix lañ te fu nekk la dem te lu nekk la ñuy dégg kon monsieur Babacar Mboup yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na yàlla bark ah kon monsieur Babacar Wade bark kon ngi baal ma rek ma yëkkati benn matku ñu koy seetaani xalaas Pape Abdoulaye Mboup ñëwoon na ndax bis ba bisama di ñaan nag lu ñu fi yëkkati ci matku doonte benn minute la yàlla na sunu faju aajo waaye di profité di la jaale nag ndax ku ne xam na ni tey réew mi metti na du wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam naa ni nga ko waxee rek ku ci mel ni sunu mag Moussa Ndiame Guèye ak kuy porteur de voix war ngay sensibiliser nit ñi delluwaat ci yar delluwaat ci teggin parce que lu ci bëri rek ñàkk orma ak ñàkk yar moo waral bari kon ñi ngi ñaan ñu defaat ndànk ñaanaat toroxluwaat delluwaat joxewaat orma kilifa yi nga xam ni yàlla da leen a ormal ñu ormal leen parce que yàlla du juum du jaawale ku dul juum doo jaawale noo def ni la ku ne sa cër nañ ko nangu su ko defee réew mi am jàmm maa ngi jégalu bu baax yëkkati benn mat ko rek ñaan lu ñu fi yëkkati yàlla na yàlla nangu ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad qasama allahu سيادة في الأزل يخمد والإحسان في القول والعمل محمد رسول الله فلله ما أزدى ولله ما بذل سمال اليتامى والمساكين لم يذل محمد رسول الله كان باغنان إلا لا يسكو بس قلبي وودو لبول حبيب لما شاقت بغدو نجل مكة منايا من دارين لقيا وغدو يديخ نتاق صبري عنه وبعده محمد رسول الله وهل يغلب الأزمة aman yabtaghi riyaa ku sopp yonent bi neel nii muhammadu rasulullahi fa ya rabbana ñun ñëpp yàlla nañu am jàmm wax leen amin fa ya rabbana fa ya rabbana فيا ربنا في أرضه والسماء أمنا على تصديقنا في الصفاء فإن وذو الأشواق يحيى بداي يشق علينا اللي شضون لقائي كن كي إذا الدين لم يكمل فلا كانت دنيا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله بركة maamam yal na ko yàlla yombalal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo noonu sunu waajur xalifa sunu maam si Ahmad Bamba di Baye Omar Tall Niang ñi ngi koy nuyu di ko siyaara di ko wax ni sunu xel dal na bi mu ñu booleeg sunu sëriñ sunu mag sëriñ Omar di turandoom muy ñëw jiite délégation bi nu àndal tey ñëw ci CRD bii nga xamante ni ah, sunu soppe sunu xarit nit ku baax sëriñ Babacar Wade tey nekk su préfet Thiénaba Seck wax dëgg si yàlla bi koy suñu borom subhaanahu wa taala andi fii ak léegi ñun dañoo ubbil buntu yoo xam ni bu ñuy ñëw fi moom duñ ko tàggu duñu yëglu dañuy jékki-jékki rek jaar fi droit ñëw si moom ni ko nangam la ñu bëgg mu ni allah yaakaar naa ni sayre bi bi ñu koy jàpp mayuma ko benn yoon mu mu xalaat suba suba woote suba woote guddi woote bëccëg ndax booba xalifa bi moom it mi ma koy soññi ma ni Allah insha allahu rabi dinañ ci jël suñu matuwaay te ni sang bi dina ko jël ndax euh, ku xam si ginnaaw gàmmu Thiénaba Seck taxawaay bi mu si taxaw dafa mucc ayib ndax euh, ki nga xam ni moom la fi remplacé muy euh, sous préfet Ndiak Sarr dafa nekkoon kenn si ñun di suñu xarit ba bu rek na kër ga bëgguñu lool wax bi mu lim ma wax nga de bu ngeen ko xamoon du ngeen ko jàppe sax sous-préfet doo nga yem si ndonga daara la kon ñun gis nañ loolu si gamoran ndax gàmmu ren dem nañ ba ay onze heures si guddi ñuy wax téléphone lim yoon wi baax gum daan kon ñu ngi lay seedeel ni ñun bu bala ñu laa di suru cérémonie gamu kër Njaga nyu ñu geestu gis la si biir tante bi nga andak ak sa délégation yi nga ko bokkal yépp loolu ñi ngi koy ñaan amgan boo am ngant bis booba lu la téye ñëw si cérémonie Kër Ndiaga Sarr ndax sàkku nañ ko si yow ndax sa teewaay si sunu kanam ñun leneen lay doon loolu ñoo ngi koy sàkku te di ko wax itam si kanamu sunu kilifa gi ñuy jëlee kàddu ndax duy teggin sax ñun ñun nekk ak sunu kilifa di jël ta te it yàlla danoo nattoo ñun mënew ñu wax si biir mbooloo ba dañuy jël sunu lep, di tek si sunu imam sunu rak de moo topp si ñun wax dëgg si yàlla mu gën ñoo xam itam la muy wax ndax bu waxee gaganti. nga ko bañ a gàgganti sunu xol dafa sedd rek musanjam ñàkk a bañ a ñëw si jotaay bi mel fekk fi ku mel Moussa Ndiame Gueye mi nga xam ni ah, kenn la si biir famille bi doxinam waxinam ba pare lu mu mën a mu bàyyi mu jàll di xool li si kanamam pour bëgg mu baax loolu dinañ ko seede si kanamam ndax ñun xam nañ ko mom xam nañu ni noonu ah wax dëgg si yàlla muy taxaw si njabootu Ahmad Bamba Tamanan busi bu si nekkuloon lu bari dina ñaaw ndax si xalaatam si jëfam loolu dina leen ko seddeel si seen kanam kon walu communication boobu muy wax jitu si kon njàmme tay bis ni tey coordinateur nommé na la ko si wetu El Hadj Mbaye président ngay ngay euh, yore wàllu lépp lu jëm si walu communication ak wàllu média ak lu sa wër ndax kat sa ak sa neex kon loolu tay nommé naa ko fii si kanam super préfet <laughs> waaw di nuyu eh, chef de service yi fi teew yëpp kenn ku si nekk engagement bo si jël wax dëgg si yalla nang nga ko daan defee boo ko ni defee sax baax na te ku si jël kàddu da nga dinañ ko nu ëppee noona kon ñu ngi leen di ñaanal ba yéen yi ngeen am mébét yi ngeen am yalla ngeen ko àggale si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko si Ahmad Bamba yek. te yaakaar na ni dina ko yek ndax ñun moom rek te monu xañ jàmm ndax lu nu am rek la di nuyu monsieur le di Elas Goraan waaye kilifaam di Muhammad Dieye ndax dama ko woo woo barki démb si guddi mu ni mer ma ne ak maa la tooñ kenn tooñu la ndax dama daan ñëw ba sa bureau ñu toog waxtaan mu ni la waaye dama bëgg gàmmu Thiénaba Seck bu amatee gamu Kër Njaga bu amatee yu mel ñuy di waxtaan ma du si kenn ndax xalifa bi wax na ma ba tàyyi ndax jot nga Mouhamed man ni ko déedéet jotaguma ko de kon man yéeg a a yëg du si sous-préfet si kenn man El Hadj Malick mana maa ngi la koy tuubal di la ko jéggalu kon Babacar Wade wax boo demee waxal ñu monsieur le maire ne taxawaay bi mu jëloon góor an taxawaay bi mu jëloon daaw def ko ba ñëpp yëg ni monsieur le maire def na la mu war a def ren jii mu jëlaat engagement yu mel noonu ñi ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko satahala borom subhaanahu wa taala gën manal loolu gën koo mottalil yéenam ak mébétam si njabootu si Ahmad Bamba waaye njabootu ñànge ndax ñànge moy Senegal, kon loolu leneen la kon ñu ngi lay seedeel ni boo demee santal ñu ko gërëmal ñu ko yàlla satahala ko borom wa taala di nuyu sunu président nag El Hadj Mbaye wawis waroon waaw vice président waaw waroon naa ñëw ndax waxe nay ngàntam présidente ma nga soxna Aida di commissaire u Ndiame moom ñëw na ak commissaire professeur Souleymane Dia soxna ay sa Diop ñoom ñëw nañ ña nga ne te ñoom fu nu teew rek ah, yaakaar nañ ni délégation wu Thiénaba ñëpp teew nañ fa waaw ah, nogay ñi moom bi Pape ñëwee rek mbin gisee nogay rek bo bu Pape joxe woon ngànt sax suñ xel da say daal ndax nogay mooy Pape Paabay nogay seen teewaay si suñ biir rafet na njuga ñëw na di ponkal moo xam ni macha allah taxawaayam rafetlu nañ ko Kontan nañ si bég nañ si Serigne Cheikhou Amadou mu sunu baay Ousseynou Niang moom itam ànd na ak oustaz ba Kër Ndiaga ak ki nga xam ni moo yore organisation si Ahmad Bamba nyang yëpp muy Serigne Omar Niang ñu koy amar Omar euh, Omar Tall Baye Fall ma nga ne toog ñëw na waaye dafay jël ay tamit ndax Bamba dafa am ñum ñu yare kuy sa mag bu dee góor mooy sa baay bu dee jigéen sa mu jëli tamit dugal ko si kàddu oustaz Madické ba tey feeñuwul ma nga ne lee toog de lépp luy wàllu organisation bi moom moo ko yore kon xam na dara man na si dara waaye cër boobu nga joxe respect boobu nga joxe yar na la ko suñu borom subhanahu taala fay ñu ngi koy yëg bu baax a baax si toogaay bi ñu ngi amaan mbégte su préfet ñu lay si di la euh, di la di kontaan trop ak yow tam Souleymane doomu xalifa bi Baye Omar Sang daf ma woo ni ma fu yi su préfet ñoo ngi lay jégalu ndax ñun ñoo fi waroon a jiitu depuis huit heures waroon nañu fee fekk yaakaar naa chef de service yi yëpp ñoo nu fi jiitu tey dañ daan doon ay oto ñu daan fekk CRD bi xam na ni daawul toll nii mais ren bi ni mu demee ak ni mu tënk nit ñi man Dakar laa xëyee kon loolu tey ñu ngi la koy jégalu tardement boobu ak minute yooyu Souleymane Niang mu sunu baay Omar Tall ñëw na jégal lool xalifa bi mën na ni sax loxo ndijooram la si côté yu bari moom it gis nañ jot euh, gis nañ ko ci biir jotaay bi di nuyu waa Gindiku waa Cosaan FM di nuyu Thiénaba 24 ah, Thiénaba TV ñu jël na nuyoo yooyu teg ko si loxol Serigne Ndiame di wax ni dégg nañ li mu ñuy wax incha allahu rabbi ñun ak yéen dinañ ko ànd dama leen di ñaan rek lépp lu ma fàttu dee leen ma woo di ma fàttali parce que nag nit ku dul juum amul nit ku dul fàttu amul te boo bëggee mu dox te nuy ku naxari deret wala ñu jàppee xamul fekk bëgg ma baax rek la lépp lu nu juumati Ndiame Yang ngi si sunu wet oustaz Madické king si sunu wet dee leen ñu woon ni di diw dem woo len diw def leen diw dem leen bërëb sàngam wax leen ak bërëb sàngam ndax temps mayuñu ko waaye bëgg-bëgg bi ak yéene bi ëpp na li nuy li kon ngi waat di siyaarawaat ñëpp di wàcc foofu sunu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu après ñaan gi rek ñu jàpp la science élevée dañuy jox sëñ mu def ñaan ñaan ñu ñu bokk yi nga xam ne ñoo fi bàyyoo ko wax nañ ko sànq barki eh, dem si Kaffrine tey booy wax yoonu Louga eh, am na lu accident bu ñuy wax bon bon ay 19 personnes waaw tey tey suba rek fukki nit ak juróom-ñeent barki démb ñeent fukk ak ñaar kon wax dëgg yàlla jot na ñu ñu dolli ñaan ñu toroxlu comme niñ ko waxee ah, naa naan naan benn kilifa bu doon wax naan nañu sangat réew mi balaa sanga boppam. kon war na taas ñu delluwaat gannaaw eh, gën a tuub ñaanal mbokk yow fi jiitu yàlla yërëm leen xaar leen àjjana blessé yi si nekk aussi suñu borom eh, eh, mais muccal leen ñaan googu ñu yéen waa su kilifa diine yi nga xam ne ak aada yi yàlla dimbali leen bàyyi leen suñu kanam ba ñu mottali seen naal di si seen bàyyi Assane Seck ñu ngi parce que ñu ngi canaba yàlla yàggal ko fi moom mottali ay yeneen si si njaboot gi. ñaanal président de la république son excellence son gouvernement maire yi ñu ñëpp service technique yi fi ne ba li nga xam ne moom lañ ñu fi andi ñu matale ko mu solo ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu si ndax suñu raison d'être mooy fexe ba li ñu fi andee ñu matale ko waaw ñu ngi sàkku na ngeen ñaanal ñu ba mu yomb ñu man ko def donc daan kon sëñ bi dañ lay joxaat kàddu gi ñu ngay def ñaan amin yaa rabbal alamin bi rahmatika ndax laas ñu def fukk ak ben yene ko way daw lii yëpp julli ci yonent bi tax tax ci dellu si waat ci suñu amiin salli ala sayyidina Muhammad salaatan ku najjina bi